yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir jamii al yaa haadiyal radaa assalaamu aleykum wa wa barakaatuh mbokk yi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaanal suñu borom ñàkk fi mu ànd ak di nuyu sëriñ Maam Balla Mbacké moom mi nga xamante ni mooy kilifa jataay njëkk tamit daara ji tamit di sosu euh, njëkkutoon tudd rek Mafatihul Bichri dafa njëkk a tudd euh, ngir rek ci pas-pas boobu yëg-yëg bi ñu njëkk ko wooyee kuréelu Cheikhul Khadim kuréelu Cheikhul bi ni ñu njëkk a wooyee euh, ngir rek feeñal yéen ci ak bëgg-bëgg bi ñu dox ab diir lu xaw lu yàggul dara sëñ Saalihu radiyallahu anhu so du jox turu Mafatihul Bichri kon loolu noonu daal ñu sosoo bu dee ci wàllu ni nga xamante si ni mooy mooy e, doxalinu daara ji te sëñ Ousmane leeral ko bu baax a baax maanaam daara ji ni ñu ko tëralee ci aw doxalin maanaam day doxalin boo xamante si ni dafa mënta ñàkk mooy li ñu tuddee bureau national nga xamante si ni daara ji dafa am ay bànqaas e, ci gox bu mu mën a doon. am ñu jiite national yooyu am ñu leen nekkal ci yeneen gox yi te lépp loo xamante si ni lu ñu tënk la rek ñu jàllale ko ci ki ña ñi leen nekkal ci gox yooyu ba loolu mën a jàll ci membre yi loolu li ci jublu rek mooy aw doxalin organisation boo ko deful ci am mbooloo am na ci lu bëri loo xamante si ni boo ko bëggee doxal day jafe loolu ndax kenn ku ci nekk mënoo wax ak moom ndax kenn ku ci nekk tamit am na jëwriñ ca barab ba mu nekk jëwriñ ci ngay waxal jëwriñ ji daal di ña nga xamante si ni loolu mooy ndigal la wàcc kon loolu mooy méthode organisation bi nga xam ne si Ousmane doon na ko te mu nekk lu yaatu loo xamante si ni bu dee ci am na ci social am na bu ci communication am na bu am na lépp bépp commission bu a doon rek am na commission nationale boo xamante si ni moom moo leen say leen tënk bu rapport mooy dajee di dem ci seen moom mi nga xamante si ni moom moo jiite liggéey bi euh, carte membre yi nga xamante si ni mooy tax nga mën a bokk ci liggéey bi loolu moom moom ngay duggee ci mbooloo mi am na ñuy kuréel am na ñoo xamante ne duñ kuréel ndax ñëpp rek marché bu nekk di kuréel ci euh, niñ ko baax ñu ko gisee nga xamante ne xaj ci am njàng na ñam xam waaye doolu ne ku bokk mu fàttu bis ku dañ naan la da kuréel far la force déedéet am na ñoo xamante ne ni kuréeluñ waaye ñooñu kuréeluñ tamit am na yeneen liggéey yoo xamante ne nii dañ leen fay soxla mooy ñooñu nga xamante si ni kuréel ñu bokk ci ay commission yoo xamante si nii mooy commission bi nga xamante si ni xaj na suñu borom yàlla na dogal na foofu lañu war a mën a yëngu ñu yëngu ci commission bu dee lu ci wàllu sart yi tamit maanaam ay sart dafa mënta ñàkk ci mbooloo ngir dana gën a yombal seen doxin lii lañ bëgg lii lañ bëgg lii lañ bëgg ba bokk ko boo ko nangoo mën a ànd ca mbooloo ma ndax doxin la gën a gaaw gën a rafet lañ ba bañ tamit am mbooloo ku ko def tamit ñu wax dana lii lañ bañ loola ngir kenn du la ci seen ngir dañuy bëgg lépp loo xamante si nii rek teray lislaam la rek maanaam wala bëgg-bëgg lislaam la loola ñu seen la ci lépp loo xam ne ay teray lislaam la tamit loolee ñu bañ la caa loolu rek mooy doxeenu sart yi nga xamante si ni moom moo ko ëmb li nga xamante si ni ay sanction la euh, sanction la yoo xamante si nii ay li ci jublu rek mooy ay labiré ay labiré ngir nit ki bu defee loo xamante si njuumte la wala mu def loo xamante si ni xaj na dafa tolloog sanction boobu lañ ko war a daan Euh, loola laa biir nañ ci jublu ngir nit ki bu ëllëgee mu bañ a dellu ca loola waaye delluwuñ ci ngir di ko buntu xatal wala ngir ne daa def nangam ñu def ko nangam wala déet ak fayando wala déet maanaam lañ ci jublu mooy ak laa biire laa biire ga nag maanaam lépp lu sanction bu laaj rek bu dee lu koy fàttali dañ ko fàttali bu dee lu koy daan wala lu koy fayloo lu mu mën a doon rek ña ko loola moom dañ ko teg bu dee lu ci wàllu organisation mooy lépp rek loo xamante si nii rek maanaam lu jëm ci wàllu mafaatu bisra ak bépp commission bu mu a doon loola dafa am lu ko waral mooy yi ko waral mooy dañuy taxawal ay bis lu mel ne màggal lu mel ne gàmmu laylatul xadar kasu rajab lu mel ne siyaar bi ñuy siyaar si muntaxaa te yooyu yëpp tamit maanaam ay liggéey lalu ci yoo xamante si ni munta ñàkk ay nit di nos kenn ku ci nekk am foo féete moo tax commission yooyu kon ni ñu ko waxee léegi rek nga xamante si ni bépp membre boo xamante si nekkoo ci benn commission kon jar na nga nga gis suñu xaadim tànn yi bu ko defee mën laa xool yan commission kon la lay orienté bu ko defee yooyu mooy événement yi nga xamante ne ak yeneen événement yoo xamante ne nii léeg-léeg mbooloo mi dañuy dem ci kër kilifa yi di leen siyaare bu suñu muntaxaa bi moom ginnaaw Tabaski ginnaaw Korite at mu jot lay doon ci biir koor gi ay siyaar yoo xamante si ni fépp fu njabootu euh, sëñ bi nekk ñu dem fa saafante ak nemmekonte ak moom sàkku ci moom ay ñaan ba loolu moo waral ñu ci bëri bëri def nañ ci ay soññee ci jëmmi daara ji soññee yoo xamante si ni soññee yu neex a la waaye nag loolu lépp dañ koy jël rek daal koy def ay bind ngir di ci jàngat fan nañu war a teg suñu tànk ngir bu ëllëgee lépp lu sëñ bi bëgg ñoom ñun rek ñu mën ko jox bu dee lu jëm ci wàllu euh, di rafetlu bu baax ci wet googu waa organisation Tamba ñi nga xamante si ni xaj na liggéey bi def nañ ci liggéey bu mucc ay ngir ne bañ fi ñëwee euh, ca suba ba tey daanaka ñamit wax dëgg yàlla noppaluñ benn yoon ñu ngi rafetlu organisation bu baax a baax ci wàllu conservatoire yaakaar naa la ci suñu ama wax suñu aboo ko ci euh, nekk na lu am solo foofu sart yi nga xamante si ne kuy bokk moom lañ lay leeral soriwut ak sart yi ñi nga xamante si dañu nekk ci biir kuréel yi lañ ci bëgg rek mooy nga gën ci am ak bëgg maanaam ci wàllu njàng mi muy mawlul bi ci biir kuréel gi bëgg gi mooy gën koo safoo bu baax a baax am ci Pastef waaw loolu rek la euh, sonn ci lool euh, ngir gëstu ngir ñu gën a gën a gës gëstu mag ñi ngir njàng mi liñ ci bëgg ci qualité ak liñ ci bëgg ci ak sellaay ak neexaay ñu mën ko ci am ak it ngir xam bi tamit gën di yokk ndax mag ñi moom boo leen di gëstu wala ngay gëstu am njàng di ci sol ñu ci Pastef xam-xam bi day gën di yokku tey day gën di neex tey day gën di baax yu ni ko kilifa bu mag gi waxee woon te loolu lépp ñu jéem def ko ab soññee rek ngir ne lépp xasida yi moom moo ko waral ak gën a bàyyi xel bu baax répertoire li nga xamante si ni Mafaatihul Bichri moom mooy répertoire loolu dañ ci gën a taxaw bu baax a baax rek ngir fépp fu daara Mafaatihul Bichri nekk répertoire Mafaatihul Bichri moom nga di ko gën a bàyyi xel bu baax ndax dana yokk li nga xamante si ni mooy gën a suuxat daara ji dana tamit gën a jëmmal tamit liggéey bi tey dana ko gën a dëgëral bu baax a baax kon loolu moom wàllu conservatoire la goo xamante si nii jar na bàyyi xel bu baax a baax ndax lépp loo xamante si nii rek aju na ci am njàng ci ay leeral wala ci ay tasaare ay son ñi ko yor moom boo leen jokkoo ak ñoom rek dana gën a leer ak sart yi ngir ko soxla kuréel gi ni ko si aboo leer la léegi am na solo tey jàpp naa ne leer na ndax jubluñ ci dara rek ngir gën a wagar maanaam liggéey bi nga xamante si nii moom la ñuy liggéey te bëgg képp ko xamante si tamit yaa ngi ci biir liggéey bi tànk yi ñu ci dox ak fulla ji ak fayda ji ak mat gi ñu ci amee nga jàpp ci wet googu ndax bu ci ñëpp jàppee rek jàpp naa ne liñ bëgg lépp dana mën a am insha allahu taala ak ni mu soññee ci màggal gi ndax màggal gi moom mooy bis boo xamante si ni jàpp naa ne képp ko yu yaakaar Sëñ Tuubaa rek bis boobu moom sa bis la mag ñi moom gis nga xër gi ñu ci màggal gi dem nañ ba seen xarum tabaski sax dañ ko daan denc ngir di euh, waajal màggal gi euh, loolu nag pas-pas ak pëstéef rek moo leen moo leen ko taxam di def xaj na nag ñu laabéri leen wax leen maanaam ne lii ak jaamu yàlla la lii moom tamit ndigal la loo xam ne ndigalu sëriñ bi la buñ ci àggee lépp lu ci waay man ci ginaar ba ci giléem ci wàllu alxuraan xasida ak istixfaar ak salaatu loo ci man nga def ko loolu uh, lu ci waay waajale màggal gi rek moom loo ci man di def rek doyul loo ci man di def doyul ak di woo ñëpp rek di woo ñëpp ñi nga xamante si nii rek muy suñu mbokk yi waa Tamba la di santaale si ñëpp ak euh, di woo ñëpp rek ñoo xamante si nii rek jàpp nañ ne lii ñuy yëngu ñu ñoo ko bokk ñoo bokk benn pas-pas ñoo bokk benn jubluwaay muy fii ci Tamba muy fa mu mën a doon ci senegal muy fa mu mën a doon rek ci ab réew mu mën a doon rek ñoo ngi lay woo jàpp ne lii ñu bëgg kat ñun ñoo bokk bëgg-bëgg bi kon ñoo ngi la ciy woo ngir ñu ànd jàppandoo ci ngir liggéey sëñ bi mën a jëm ca kanam kanam kanam kanam. xanaa di fàttali rek programme yi nekk suñu kanam nga xamante si ni lii programme yu yaatu yaatu la tàmbali woon nañ ko njaareem fa nañ ko dooree ñu teg ci Thiès daal ci teg Louga tey ñëw Tamba euh, jombul yeneen jamono incha allah ñu waajalaat yeneen yoo xamante si nii mën naa doon Casamance wala Ndakaaru euh, kon biñ koy tëjee rek mooy la biir ñëw nga xamante si ni ñu ngi koy tëjee Touba ñi ci woo ñëpp comme nu nu gën a yaatoo rek noonu lañ ko bëggee. bëgg nañ daal maanaam noo xamante si ni daal bisu waa Tamba moom neex na lool waaye nag bëgg nañ daal lu ko gën a faw xaw bu baax a baax bu ñu agsee ci Touba ko jéem suñu kenn ku lay xam naa loolu moom ñu ngi ciy woo ñëpp di ñaan ñëpp ñu fekk ñu ca ndax ci bis la boo xamante si nii dugg na ci biir safar gi tey euh, tournée yi ñuy def ak lépp loo xamante si nii rek maanaam du yëngu-yëngu la ci daara Mafaatihul Bichri ñu boole ko ak bisu safar nga xamante si nii dafa tàbbi ci biir safar gi yooyu yëpp nañuy boole ngir mu nekk bis boo xam ne bis bu mag a mag la ni ñu ciy woo ñëpp di di ci di ci séentu ñu tamit ñëpp di sant euh, waa Tamba rek ci teraanga yu yu yu yi nga xamante si ni defal nañ ko daara Mafaatihul Bichri di ñaan suñu borom yokk leen te yokk seen xew yokk seen man bu baax a baax di sant góor ñi di sant jigéen ñi di gàttal foofu suñuy kàddu di sant sëriñ Mame Balla bu baax a baax ci taxawaay yi ak euh, yittewoo gi ak safoo gi ak sëñ Abdou Lahad Mbacké moom it di ko sant bu baax a baax gis nañ taxawaay yi nga xamante ni taxaw na ko ci mbooloo mi di jàpp ko ci mbooloo mi jàpp ko suñu xaadim ndax suñu xaadim moom jàpp ko moo jàpp mbooloo mi kon nag ñi ngi woo ñëpp ci liggéey boobu di di ñaan suñu boroom te bu leen kàttan bu baax a baax ba yéen ci ñu am ci liggéeyal sëñ Touba suñu boroom mat li ko ak jàmm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.